مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل يا صل وسلم دائما ابدا على ngay wax wax nit ñi melni ni dañu bëgg nga masla bëgg fi faté te fekk xaju fi man sama dëgg bu joté rek ma wax ko yéen toog ca ñetti fanu Tiwaawoon Sayyid Cheikh ni bala may dee noonu la ko waxee bala may dee ñu naan xale yi mu ni ndax xale bu am jom dina seetaan ñuy satoo baayam dëgg la ndax xale bu am jom dina seetaan ñuy satoo baayam mam Cheikh sa turandoo nee na ndax xale bu am jom dina seetaan ñu satoo bàyyam te jógu fi nañ waxante dëgg rekk jógu fi Xalifa Mbay mi léeg-léeg mu jooy ba dof téléphoné Moussa Gueye ñu wax ba seen crédit jeex Serigne Ndiaye mi léeg-léeg da koy yërëm sax day mel ni dootul nekk nit waaw Mansour Ndione mii léeg-léeg sax mu perdre sago dootu ko mën a muñ mu yónnee la lettre bu day na ñey waaw ku ne imam Samba moom ma ngoogu rekk waaw moom ñi mu bokkal ñëpp danga leen di yërëm sax ñoo nga ca suyuufullah rek waaw sayfi yu cheikh sayfi yu alxaaj omar sayfi yu maodo sayfi yu sëñ babacar sayfi yu sëriñ cheikh tijaani yaa nusratallahi xulli aqda ma rabatu وشتتي شمل أقوام بنا ارتبطوا سين جورجي وحده الله أكبر سيف الله قاطعهم وكلما قد علوا في ظلمهم هبطوا كنا قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو من قبضة الشر